waaw sama bu ma nuyoo ah, jàmm moo tax nuyoo ma parce que gis nga président am na loo xam yaa ngi dëkk bàgg la am na loo bi ma gisee ñu commencé def affaire affaire jakasee ay géwal ku ne di wax ci yow boobu la affaire bi yàq alaaji Macky Sall lii may wax ak yow musuma wax ak yow sama xol bi moo jeeg mais nan moo jeexal sa xol non damay wax rek sama xol bi moo jeeg xam nga lu jeexal suma xol parce que bu njëkkaan président bi mu faloo. waaw da nga ma woo ne ma Farba Ngom waaw nga ne ma. waaw yaa ngi sama géwal démb. bis gi tey lépp lu may wax ci yow laa ko mais bi li nga xamante ni mooy. Euh, consort gi mu nekk rek taxaw di wakkal Macky Sall ci dëkk bi est-ce que lu ko taal wax ko kay. loolu la xam nga luy taal dëkk. yow yaa ngi toog di nelaw Gaston mi ngi saaf sa mi ngi saaf dëkk. xam nga Gaston dem Gaston dafa bàyyi ba. waaw nga tey dimanche jot na mu dem wal fajri yi génn ci sorti mu wax nit ñi di ko déglu mu ni Macky lay wax mu jékki-jékki. nit ñi dafa lu baax lay wax Gaston daal ni. famille Dias nee na famille ah. Dias boo xam sant ni Dias. bu ñu ngi mel nee na famille bu ñu leen saafoon comme pomme de terre. lu Gaston lu ko dal loolu war na ko. kay du waxu nit. da ngay laaj Macky Sall léegi xaaral yow léegi wax nga noppi bul ci xuloo bul ci xeex. dinaa ko lijjanti mais boo waxee non non man dinaa ko lijjanti est-ce que di ko lijjanti bàyyi ma ci ma dinaa ma rek koy woo léegi noppil ma woo ko. waaw baax na yow yaa wax noppil dinaa noppi génn ci génn ci amul problème. may ma maa ngi ko léegi kon woo waaw toogal rek déglu allo gasso man bala may dem ma dégg li nga def ya nga am coom wa wa bugu mako dal waxtan ko dama la solo sama keur leug deug man la president wala su na ñaw na ñaw bay na ñaw tey tey amul bay ko suba noppil damay mëna wuyu tey amul bay bu suba xass na def do tay na ñëw tay amul bay jéglu may ma la wax oh ki kii ñew leug rek dama la solo ma ngi lay xaar baax na bu ñëwee gis nga bu ñëwee nanga dal ci kaw Gaston li mu mel nit ñi ñoo ko may. Euh, oh, muy jaay maanaam ma wax mu génnaat. ni mu wax mu mais noppil mu bàyyi ba mu nekkaat mu génnaat daal mu di di yàq sa dër. kon noppil. waaw baax na yow yaa ko lamb kooni mu noppi mu noppi. kooni tëjee sa lammiñ mu tëj ci lammiñam mais na nga kool li ngay waxee moom man maa ngi dem comme nee nga ma bàyyil mu set dina baax bu dul woon loolu dinaa dal ci kaw Gaston. fii moom. bàyyi coow li laa ko lijjanti non Samba yow nga nag Gaston nag moom tam mu ngi bëgg a ëppal ah saaf ku ko saafloo non bu ñëwee fii dina ma wax lu ku ko saafloo ak ku ko lakkaloo lakk ak saaf moom dina wax ku ko sant ak ku ko jox brochette wala di ko jox furno wala lan ba di ko tàngaloo di ko saafloo ak ku ko saafloo mu mel ni chef cuisine ba mu

man yàlla tere. Gaston li mu wax ëpp na de. lan la wax. ci wàllu xeet xam ni Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ni danoo jox cër ci wàllu xeet ak xeet rawatina ci ngiiru sant mu naan sant jàmbur bëriwul bay lim naa mat nañu fukk baax na xam naa ne sa der bu yàqoo ci dëkk bi rek Gaston la de bu dee yàqoo yebal nag mu baaxut moom. loolu la wax kon dëgg la. voilà léegi ñëpp jot nañ ci. ba pare ñu ñu ñu posé waat ko question. mu insisté waat. amoo ah man maa ko wax du ma ruux ra du ma ragal man. Gaston Mbengue loolu la def. ma lay wax. bis bu ñëwee fii dina xam ne man la jàkkaarloo. raakol bi nag xam naa ne dama koy sànni ci mbali. loolu sama yoon nekk ci. waaw ah, jaajëf waay. gis nga boo toppee Doucouré mii. Oh, nga def moom ma fekk fi dina xam ne du fekk na fi ku dul président. dina fi fekk Macky Sall Kortimbo. soo toppee waxi Doucouré yii di nga def looy rëccu de defal ndànk. défal ndànk. mais ñu naan mu def erreur au lieu mu jégalu mu duggaat ne moo ko pour lan loolu. mais demande-lui juste de euh, de de présenter ses excuses et il va le faire su ko deful nag su boobaa mën nga yéeg mais excusez wul bàyyi ko boo ko excusez wu ba pare yow tamit nag ah! tu sais que quand tu fais ça tu me fais trop peur yow tamit. baax li ngay def asalaamaaleykum asalaamaaleykum. fay lu bandi di niroon président. bi lu bandi di niroon lu war a doon jikkoom. lu bandi di fay na nga ngi jàmm président. ci loo ne bàyyi am jàmm. temps maa toj dëkk bi de. temps foo tollu Gaston Gaston mais rajaxe nga rajaxe nga vraiment. <laughs> loolu ak mbégte la parce que xale yi dañu réglé dañoo réew dañu réew ba nga xamante ni bii taxaw ci télé bii di woote violence di woo ku wax mag mu wax ñu ñu ñu ñu watal la sa sikkim ku wax ñu dal sa kaw man leen nag ku ànd ak président ko laal laal ma parce que le king lañ ma woowee mu nekk king yaakaar naa ni loolu moom xale yi yaxal nañ ko euh, Barthélémy Dias loolu wax de Barthélémy Dias dama dal ci kawam ba nga xam ni daal fi mu nii dégg naa sax ma ngay jooy léegi nañ ma woo di ko wax Aminata ma ko wax nee na ma daa woote di jooy laa la waxal ni Gaston maintenant ça va ma ne leen yéen magu leen sans sans fa yéen ku leen taal yéew mi yëg ko saa juufeen ku leen taal yéew yëg ko mais Diaz est-ce que du cinq Gaston arrêtel yow ko ëppal nga ah. déception bu rëy lañ am mais yow Gaston kan nga yëpp yow nga defee ni waxal ma lu bon moo ma neex yàqal ma xale yi doon la jéem a kii ma ne may ma sama jàmm nga naan xale yi dañ leen a wat sikkim yow bu xale yi watee sikkim wat nga lu raw sikkim li nga wat kenn mënu ko wax ci télé boo tojee dëkk bi lakk nga ma man lan ngay taxaw nan da ngay lak ay population ku la lo mo lak daay gi kan mo la lo day gi kan mo la lo day gi Gaston yow amo jom dakate ah déglu ma la wax buma tontu man nak ken du ànd ak man ngir yakal ma mais pour débaral déglu ma euh, bul tontu bul tontu déglu ma li mako débaral ken xamul lu mu tontu xale yi dañuy jugol bëgg a ci ko man len nak da dak loolu fekente ni muy da ngay ñew di di defal dama jaxal kasson Gaston déglu man nga ma deglu wala mënoo ma déglu. maa lay déglu xam nga lu ma la bëgg a xamal. man je suis le président du Sénégal. du ma wax déglu ma duma wax ni duma tonto amul. dag may deglu Gaston man doo ma ak Sénégal wal fajr yi sax da nga leena yablu. télé ba journaliste yi wal fajr nekk télé deglu ma la wax buma tonto wal fajr nekk télé bo xamni ñepp ko doon top tay yi nga wax fa wax ju ñaaw jooju pour lan ton journaliste yi wa wal fajr tooñ senegal te fay tour wat sama kaw yow lu ma Sénégal tur doyul nga bëgg ci tur lenen pour lan non da yow ma and ak yow ci lenn damay sun diggante day jax président bay li ngay wax xam nga réew dafa am nañ koy yoré boy bo len bayyi won dañuy ñëw gëna a yëngal te la laa doon bañ motax bima juggé wax ñum ñepp xam nañ ni nga soo wax na parce que man luma wax Diallo musa bako sulé gis ko xalé yi ku len bayyi won tay mardi tal mi nañ fi def lenen xoolal Barthélemy Dias li muy wax ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ma ngi koy wax yoo xamante ni bi yu bari la yoo xam ni ay audio yu ma envoyé la jëm ci yow yoo xam ne sax teguma ko kon boo wóoru jàmm mën na Gaston man borom dëj bu dëggoo ba ma tontu parce que dëgg président de la république moo tontu kenn est-ce que man ci tontu lay politiquer tontu loo ma la est-ce que tu pourrais te calmer un peu maintenant tontu loo ma la ay hein? nag nga mën ci dara est-ce que tu pourrais te calmer hein? li ngay def ni ça ne résout rien du tout ay yuuxu ay wax ça ne résout absolument rien

xëy peut-être tu n'as pas idée de la gravité de la situation moo tax ngay wax li nga wax c'est grave dafa ëpp man su je ne dama koy qualifier ce sont des propos racistes ethnicistes après laa waxam mais waxee ma non mais est-ce que xam nga tey fi mu toll ah tey dangaa jël ay ethnie nga jaxase leen ay tal! est-ce que xam nga mbirum taal lu muy signifie Gaston ah dafa mel ni la gravité des choses yow on est dans un pays laïque pays où xam est ethnie ñoom ne ñoo bokk benn lan mais tey boo nii da ngay jël ñu sant Dias bu ñu leen taalee matuñu sang bu wala bu ñu leen taalee tey du wàññi dara ci là tu fais erreur tu fais une grave erreur Hein? xam nga Dias lan lañ ci réew mi xam nga yeneen ak yeneen lañ lañ ci réew ne joue plus avec ça tu vas essayer de arranger tout ça en présentant tes excuses publiques bien sûr c'est la seule solution que je vois. ba pare bu ko defee dafay créer sax guerre civile mën nañ koy suba xeet yi di xeex di xuloo man la koy indil problème man famille Diaz am naa fi ñoo xam ne APR lañ bokk par exemple Diaz di sama xarit di sama papa ma def ko sama conseil spécial est-ce que bi ngay wax xalaat nga ko tappale lay xëy si chaque jour mais imagine déglu ah, ma imagine muy xëy si waa pale di ko xool naan pabel lañ war a lakk loolu rafet na. ay sëtam ñu nit ñi lañ war a lakk day toppaate amiin barki démb rek mu waxee sorti boobu Aminata Mbengue ma woo sax am nga maam bu sant am après leen ma yow naka Sénégal yëpp ay mbokk lañu am maam bu sant Diaz di xas waa Diaz boo xam ni ma nga hmm? Tamba eh,

moom la bàyyi woon sa perte gi di nga xam ne du Sénégal amul njëriñ. ba am seen loxo yi naan eh jërë sa ndox mi. delloo ko delloo ko bëgguma bëgg loo nettali doo nga tax nga ñëw.